الذي أدى الأمانة خير أداء وبلغ رسالة أحسن تبليغ بوك جوليدي ني نوي نيب دي زيار نيب دي أم بيكتي ديل وات سين ايميشن بيغا خامني موي تفسير القران موي داو تي ويرو كورغو ييب فتبارك الله ني نوي كليفا ديني دي نوي كليفا اداي نيغي تاخيوون داك وانه في الاخره لمن الصالحين موم دي يونتي يالا ابراهيم bu ëllëgee dina bokk ci ñi yiw ñu war a jël tey wa iz qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin mu ni ba tey ay wa wa ay uzkur fàttalikul is jamono ja nga xam ni خالا وحنكو ربه برومم له نيلكم ابراهيم نكو اسلم ومتم مانام توبل دين يالا جي قال منكو اسلمت ومتنا لرب العالمين جيمتي بروم من دفي نيو رنيو ووصى وفي قراءه اوصى بها ay bil millati aaya bi nag testament la ibrahim def fii xam nga testament ñu ngi ko xam ci miraas al wasiya min baadi wasiyatin yusa biha aw dayn testament dagan na ci képp kuy jullit balaa ngaa dem nga bind testament waxuñu la nag nga séddale sa alal parce que kenn du miraas sa bopp da ngay gis ñoo xam ni dañ naan suma ma deewee diw na jël lii diw na jël lii sama doom bi jël lii sama doom bi na jël lii dem bàyyi woo fi dara loolu da ngaa séddale sa bopp testament buñ ko waxee mooy ki nga xam ni dafa bind ni su ma génnee àdduna may na ci sama alal diw nangam may na ci sama alal diw nangam may na ci sama alal diw nangam ta ñoonu nga may ñépp kën du la ci donn parce que la wasiyatan li waris yonent bi neena kep kuy donu do bok ci testament motax alquran nasakhal aya ba nga xamni ni nañ ko kéro moy bañuy def testament bolé ci ñaari wayjur aaya boobu laa waseetal li waaris looloo ko dàq parce que sa papa ak sa yaay ñoom dañ lay donn kon boo tollee ci diggante di def testament ndax wóolootoo sa ginnaaw doo leen ci boole moo tax am na ñeent yoo xam ni dañ naan ñeent yi euh, bu nit génnee àdduna moom lañu war a njëkk xool balaa ñuy def dara muy alxuquq almutaalliqa bi tayka alal ji nga xam ni moo war ci ki nga xam ni moo doon dund waaye alal ji mu ngi fi te génn génn na àdduna lan ak lan moo ci war ñu ne ñeent yi moo ci njëkk a war ñu tënk ko ci kalimat tadum taa moo nekk tajhizu maytin waajal néew bi min aslin wa kafnin wa dafnin ila an yudaaf fi maqari al axira moo xam sàngaay ba dañ koy jënd ca xaalisam bu dee ndox ma sax dañ koy jaay ca xaalisam lañ koy jënde yére yañ koy solal ca xaalisam lañ koy jënde bàmmeel ba ñuy gas su fekkee dañ koy jaay ca xaalisam lañ koy jënde ñay gas bàmmeel ba ca xaalisam lañ koy faye ña koy sang ko bu dee am na lu leen jox ca xaalisu néew ba lañ koy jox loolu moo ci njëkk dafa rafet rek nit génn àdduna kenn ñëw taxaw ni àngu naa bor bi wala kenn ñëw taxaw ni waaw jënd naa lii nag bi nangam ak nangam mais loolu lépp xaalisam day génn muy tëji su mayti ñaarel bi qada duyunihi fay ay borom bor dafa mën la jël nit ci bir bammel motax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu daan tek néew ndeysaan day ñëw ni ndax bayina bor suñ ne bayina bor mu jullee ko suñ ne bayul bor mu wone ginnaw ni sallu ala sahibikum jullee len seen mbokk bi bi ñu demee ba jëmmi jamono nag ci lañ créé benn caisse de solidarité baytu maal Seyduna Muhammad wax ni képp ku génnati àdduna bàyyi bor amul lu mu faye nañu tibb ci kees gi fayal ko ku bàyyi alal nag nañ la miiras man maata wa taraka daynan walam yatruk wafaan fa alayna qadauhu wa man taraka war a warasatihi mu ngi noonu kon ñaareel ba mooy bor ñetteel ba mooy testament bi nga xam ni def na ko nañ ko xool lan ak lan moo jaadu parce que testament warul weesu un tiers laa yatajawaz as sulus bu weesu un rek dañuy laaj héritier yi ñi nga xam ne ñooy donn est-ce que nangu ngeen testament bi continuer parce que ëpp na un suñ ko nangoo nga jooyal testament bi mais buñ ko nanguwul nag du am léegi-léegi ma dem ci miiras ñu ne ah sam bi muy def testament nangam ak nangam dama ko may man koy sa papa li mu def du charia testament bi kenn du ko jooyal testament ak may bokkul may mooy bi ngay wér nga décider ni diw may naa ko nangam loolu yaa ko may moo ko moom booy mayee nag mandul su dee da nga am ñaari doom bul may benn doom bi bàyyi sa beneen doom su dee da am ñaari soxna bul may benn soxna bi bàyyi beneen soxna bi na leen yemale ñoom ñëpp jël maandu def ko seen diggante. ñeente bi mooy mooy taqsimul miraas loolu mooy yi nga xam ne moom mooy alxuquq al mutaalliqa bi tarika Ibrahim nag testament bi gën ci testament yi la def ndeysaan mooy woo ay doomam ba ñu ñëw mu ni leen seen testament mooy yàlla ak yonent bi. bàyyil naa leen ak yàlla bu ma fi jógee bu ëllëgee na ngeen teg seen tànk fa ma tegoon sama tànk kilifa noonu lay def léeg-léeg nga dajale sa njaboot ni leen xaw ma kañ lay doon xaw ma kañ laa fi jóge nag waaye heure bu ma fi jógee maa ngi leen di dénk siratan mustaqiman bu leen wàcc yoon bi mukk ak lu jamono lëndëm lëndëm lëndëm na ngeen tegu ci yoon bi wa anna haza sirati mustaqiman fattabihuhu wala tattabihu subul fatafarraqa bikum an sabili Yalla neena yon bi leer na naññ comme ni beccek leere yon bi leer na ñan musu gis ko ku yalla may nga am beut di gis nek ci beccek mu leer ni la yaangi ni jakarlo ak jant bi nga nan ci guddi nga nek yalla neena na lee nga xamni tracé na ko bu len ko jadd bu len ko jadd rek ci kamb ngeen jëm moo tax wa wassa dénk na biha ay bil millati ca diine ja ibrahimu ibrahim banihi doomam ya wa yaqub ay ak yonent yàlla yaqub testament bañ bañ def mooy lan xaala mooy la wax mooy yaa baniya yéen samay doom إن الله أصطفى لكم الدين يلا تنال نلين دين موي سين دونو يين أمو لين لولين دون لدول دين سيدي الشيخ وحنكو تراس مجد لأهل المجد ولو عقلوا ذاك التراث الذي قد فضل العرب سيدي الشيخ نينا إريتاج بو خامني تد nee na ñi judd ci kër tedd ga ñoo koy doon ak condition ñu xam héritage boobu nga xam ni un moom lañ jox arab yi moo tax arab bi amuñu lu ëpp sayduna muhammad jullit ñi amuñu lu ëpp sayduna muhammad moo tax nag ndeysaan mu ni leen yéen seen testament mooy diine seen héritage mooy testament seen teraanga mooy diine yàlla moo jël diine jox leen ko mooy seen teranga àdduna mooy seen teranga àllaaxira kon na ngeen fonk testament boobu moo tax mu wax leen ko mun leen falaa tamutunna bu leen dee mukk illaa wa antum muslimun lu dul da ngeen di deewaale ngëm lu dul jullit ngeen ba tey ni mu defee testament moom ibrahim yaqub noonu la defee testament dénk ay doomam kazalika yoon bu baax sa dom dang koy orienté ci yoon bu baax ba nga xamni jamono lu mu lëndëm lëndëm lëndëm du dugg ci kàmb parce que jamono dafa mën a changer jamono day changer day soppandiku ci moment bu ne waaye teg ko ci condition boo xam ni moom lu jamono changer changer état d'esprit du changer ngëm yàllaam du changer mais day gën a màgg lakin turuxa irdaiha tataxawar wa tataaddal ila xaddin kabir kullama taqaddama fi l umri moo tax yar sa doom am importance sa doom mën nga ko yàq waaye yar ko waaye jël sa doom boyal mu réew ba dof xamul ku mu war a jox respect ak ku mu warta jox respect yàq ko ba mu yaakaar ni àdduna mooy alal bu ëllëgee di nga tëju di jooy foo xam ni doo gis ko la nax mukk doom dañ koy yar boobu ëllëgee bu demee ba nekk kilifa yar doomam am na benn waay waa ji ndeysaan papa ji yaru ko mais dafa téye bàyyam dóor ko dóor yu metti yoo xam ni dóor ko ba génne ko ci buntu kër gi teg ko foofu moom it mu am doom doom ji dóor ko ba génn ko ci buntu kër gi mun ko yemale ma fii fi la ma sama baye yamale won ko xaruma yok kon xolal gis nga lol day law di mag, day dem ba topi seuti motax yer am importance ci nit motax gis nga nit war nga sour bo boo ne demee ba nek mak euleuk sa CV e dundu bu rafetul fo jëm ki de bàyyam tuxkat la woon kii bàyyam naankatu mais adresse bobu lan moko gëna waaye kii baayam imam la woon kii baayam ministre bu ñëpp nawoon la kii baayam nit ku baax la woon mais adresse boobu moo rafet moo doomu aadama dafa war defar CV ngir bu ëllëgee bu fi jógee CV ba nekk lu rafet moo tax Yaqub def testament moom it an ku am kuntum shuhada ndax da ngeen a teewoon is xadara ba mu sëppoo Yaqub yonent yàlla Yaqub الموت بوكو دي سبو قال موني لي بني اي دومم ما تعبد من بعدي بوما في جوغي تي لان غيني نيك لان غيني جامو خالو ني نيكو نعبد الهك دينا جامو سا يالا جي واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا مي بن يالا نك ونحن نون مسلمون دينا وماتو له نيالكو ديسان يالا ني تلك امه خيت بوبو xadd xalat wéy na laha ñeel na leen maa kasabat la ñu def ci lu baax ak la ñu def ci lu bon wala kum yéen it maa kasabtum li ngeen liggéey ci lu baax ak li ngeen liggéey ci lu bon yéen lañ koy fay wala tus aluna deefu leen laaj amma kaanu yaamaluun lañ daan jëf seen yoon nekkul ci ñoom la ñu daan def yéen lijjanti leen seen bopp kenn ku ci nekk doy na la li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yuhni yàlla nee na ëllëg kenn ku nekk sa CV bopp doy na la soxla acca ñu ñëwaat ba tey ci ñoom yahud yi ak nasaraan yi ñoom nee nañu ku nekk yahud jub ñu ni ko nekk nasaraan jub yàlla ni leen déedéet demelu noon de benn jug moo am mooy topp leen diine ibrahim bi jub moo tax mu ni waxaalu kuunu ña nga naan nekk leen huudan huud tëhtëddu ngeen jub wala kuunu nekk leen nasaara nasaraan tëhtëddu ngeen jub ku waxal yow muhammad bal li fi nekk millata ibrahim diine ibrahim bi xanifan moo jub moo tax sayduna muhammad ni man ci sama ñaanu maamu ibrahim ci lañ nangoo sama diine wa ma kaana nekkul woon minal mushrikiin ci ñi nga xam ne dañ daan bokkaale yàlla xuulu wax leen aman gëm nañu billaahi yàlla wa ma unzila ilayna ak li ñu wàccee ci ñun ci alquran وما أنزل أغلى خمني واتينا نكو إلى إبراهيم تي إبراهيم وإسماعيل أك إسماعيل وإسحاق أك إسحاق ويعقوب أك يعقوب والأصبات أك أي دومم وعيسى أك عيسى وما أوتي أغلى جخنا نكو النبيون يننتي من ربهم مبايكو سنتير من الكتب والآيات أي تير أك أي آية لا نفرق بين أحد منهم لن يتاقل كن نيوم نيوم نيب دين لين kon moo tax bul weddi kenn si ñoom wa nax nu lëhu ñeel nañu muslimuuna di wommatu wala wa nax nu ñeel nañu muslimuuna di wommatu lëhu topp ko moom yàlla ba tey ñoom yàlla ni nag fa in amanu bu fekkee gëm nañ ñoom yahud yi bi mislima amantum bihi comme ni ngeen gëmee faqad ihtadaw jub nañu wa in tawallaw bu fekkee dañoo lànk ni war a jël beneen yoon fa innama hum ñoom fii shiqaaq ñi ngi ci wuute فسيكفيكهم الله يلا دينا لا فغال سي سين بون با كين دو مانا نيو لور لا وهو موم يلا السميع مو ديغ واخ جام العليم مو خم جيفي جام سبعه الله سوب يلا سوب يلا ومن احسن من الله سبع كين دو رافيت سوب با ملني سوب يلا كين دو رافيت سوب با ملني سوب يلا واخيل لا مانام دين يلا جي مو گن لپ موي اسلام wa nax ñun aabiduna ña ngay wommatu lahu ñeel ko di ko topp xul waxal yow muhammad atuxaajuna ndax da ngeen ñi dàggee fillaahi ci yàlla waxu moom yàlla rabbuna mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen borom wala naa ñeel nañu axmaalu naa suñu jëf wala kum ñeel na leen axmaalukum seen jëf wa nax ñun muslimuuna dañuy wommatu lahu ñeel diine am wala bal ولا تقولون لنا إن إبراهيم إبراهيم وإسماعيل أك إسماعيل وإسحاق أك إسحاق ويعقوب أك يعقوب والأسباط أك دومية كانوا نكون نيو هودا هود أو نصارا ولا نصارى أنتم آمنتم أآمنتم ده جم جن لول أأن أه؟ أأنتم أعلم أأنتم أعلم أم الله نخ ين خم نيوم أي يهود لنيون ولا أي نصارى ولا يعلم وكو خم moy wax ja yàlla ni won ma kan ibrahim yahudine yahudiyen wala nasraani parce que ibrahim dafa djubon ba kenn ku ci nek dik xëcc pour taf ko sa côté waman aslam amul kenn ku dàkk tooñ min man ba melni waji nga xamni katama ma ngay neub shahadatan seede indahu fa mom min allah ci yàlla wama allah det yàlla bi afilin disagan amma taamaluun la ngeen di jëf yàlla nit ba tey ka ummatun xeet boobu xadd xalat wéy na laha ñeel na leen maa kasabat lañ jëf wala kum ñeel na leen maa kasabtum la ngeen fàggu ci lu baax wala tus aluna deefu leen laaj amma kaanu la nga xam ne nekkoon ngeen yaax maluun daan ko jëf lii waxoon nañ ko fi mooy taxwilul xibla bi yahudi ak nasaraani bi yahudi ak sayduna muhammad bekk bokkee benn xibla bu ñuy jublu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba ci biir ndeysaan bëgg yàlla réserver ko xibla boppam ndax dañ ko doon wax naan yow bu fekkee diine ji nga nga nekk kon kay da nga war a am sa xibla bopp lu tax nga ñëw fekk ñu suñu xibla te fekk qulillahi al mashriq wal maghrib ndeysaan mu yëkkati bëtam doxal ci kaw asamaan yàlla ni ko nag xad nara taqallubu wajhika fi sama ci lañ ko wax jublul kahba moom la ñuy bëgg a jàng nii سيقول ما غاي واخ السفهاء الجهلاء نيغا خامني دانيو رير ما واللهم موم لان موتاخ مو ني ولبتيكو ان قبلتي التي تي قبله جيغا خامني كونو نيك ناني عليها دانكو جوبلو موي بيت المقدس قل وخال يا محمد قل لله المشرق والمغرب نيلن بينكو اكسو ييب يالا كو موم يهدي يالا اورينتي من يشاء كو سوب ila siraatin ci yoon mustaqimun bu jub xocc muy diine islaam wa kazalika naka noonu jaxalnaakum defal defal nañ leen ummatan wasatan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeetam ñooy rambu ah yeneen xeeti ñooy seede yeneen xeeti loolu tax waaye ñun seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñuy seede motax muni wa kazalika ndaka nonu jahalnakum defal nañ len ummatan wasatan sen xet nek ay tanef ay xiyaaran yu nek ay tanef li takunu pour ngeen nek shuhada di sayd ala nas nit ñi yowmal qiyam wa yakunu dina nek ar rasul yonent bi shahidan di sayd aleykum ñeel len wa maa jaxal defuñu al qiblata xibla ba allati bi nga xam ni kunta aleyha nekkoon nga fa daan fa jublu illa li naalam lu dul ñu xam mim lu dul ñu xam man yattabi rasul maanaam defuñu ko lu dul rek ñi xam ñi nga xam ne ñoo féetewoo ci yonent bi ñi topp sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mim man yanqalib ala aqibahi ak ñi nga xam ne woon nañ ko ginnaaw wa in kaanat yàlla neen loolu na nekk la kabira lu diis lu xat إلا على الذين لول نيغا خامني هدى الله يالا مولين اورينتي وما كان الله ديت يالا لي دي واخ دي سانك ايمانكم سين سين سين غم ان ان الله يالا لا رفو رؤوف اجي نيوانتي لا رحيم اجي يرم ام يرمن بالناس تي نيني ان شاء الله تعالى في لا ني يم اك ينتاي سون جاواتي نك تي لا ني جانغ لا ني دون نيتالي ليغي خاوكو انتسيبي ما قد نرى تقلبا wajhika fi sama eh, koru tay gi nak mom da xaw metti <laughs> motax tay mom dañu ñew ñew rabal rek dal di dem wa leg leg mom li li imam Cheikh Jan bay daan def Li léeg ni daan tafsir ba si ak jik ni acca ñu rabal acca ñu rabal ba tay sax non lay tafsiré leg leg mu dem bi ci ba ci bir ni acca ñu rabal acca ñu rabal waaye ñu ngi jéggalu dañ daan jékki-jékki nag taxaw détaillé aaya bu ne ñu détaillé ko indi sababu nuzul bi waxtaan ci tënk ko ci jamono waaye nag kooru tey gi moom dafa xaw a sant may te mbay yi dañoo xaw a ragal koor moo tax ñu ràbbal ko incha allahu taala beneen yoon nañ ko gën a détaillé bu mu gën a ci kàttanu suñu borom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan yàlla yàlla na fi yàlla jële feebar bi nu mu gën a gaawe lu ci jub rek ñu xam ni yàlla la lu ci dëng rek nag ñu xam ni eh, suñu matadi la ndax doomu aadama matul yàlla rek moom mat alkamal lillahi kon nag comme matuñu ah ñu ñaan yàlla yàlla ñu yàlla jéggal suñuy rëcc rëcc ak suñuy jumte doomu aadama moom dama naan léeg-léeg zallatul lisaan dina ko dab làmmiñ bu rëcc moo tax alxuraan yàllaa ko yaatal ci dënnu nit waaye yàlla bu teeloon boppam alxuraan yaakaar naa ni pour nit firi ko du yomb boo tax yàlla ko yaatal yàlla ko yaatal ba jullit ñi mën koo dégg mën ko dugal seen dënn ba tax na ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu kilifa diine yi comme niñ koy waxee nuyu kilifa aada yi di leen jox dig daje insha allahu taala altine wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh